n'était pas n'importe qui aussi donc duñ ko fa teg mm. beneen bi mooy itam donc euh, de 2002 euh, waaw après cela moom moo nekk aussi donc euh, de de 2002 à 2004 aussi donc xam ngeen ni aussi donc c'est c'est c'est c'est le intégré comme ni nga ko waxee moom mooy aussi donc njiitum parti réew mi nga xamante ne daanaka il est connu ex maire de Thiès donc xam nañ ko ci loolu mu nekk mu nekk aussi donc président du conseil départemental de Thiès depuis 2014 donc depuis un an xamante noonu xam nañ ni déjà donc moom moo euh, ah, depuis le premier novembre 2020 donc mu nekk président du conseil économique et social environnemental ñu gën a xam ñu gën a ràññee ne donc moom euh, maanaam nekk na ci nguuru Abdou Diouf nekk na ci nguuru Abdoulaye Wade nekk na itam ci nguuru Wade mm. tey jii nag ñu mën a jàpp ne la ñu koy euh, insérer ci poste am noonu parce que déjà dafa am ay rumeur yoo xamante ne dafa dafay courir parce que déjà en général dañuy dégg ay passation de service mais bii yoon. vraiment installation la ñu dégg. donc mu doon loo xamante ne wax dëgg fa yàlla donc mën nañu ko jàppee vraiment donc leneen surtout aussi donc diggante ak ñu ngi lu lu lu lu ratat lool euh, ba itam euh, tey mën nañu yaakaar ne bu fekkee tey dañuy installé vraiment donc Idrissa Seck soxla autant vraiment service ak discours aussi donc bu Mimi Touré defoon fële ca euh, conseil économique social et environnemental mm-hmm. ñu mën a jàpp ñoom seen diggante dafa rafetlu bu baax a baax mm-hmm. beneen bi mooy déjà Idrissa Seck d'après jaar-jaaram bu ñu gisee ñu xam ne ku xam état ku mm-hmm. xam itam donc yenn poste yi la il a été aussi le premier ministre donc ci nguuru Abdoulaye Wade donc ñu mën a jàpp ne vraiment donc moom il n'est pas en fait il n'est pas n'importe en plus cela fu mu nii euh, c'est en fait c'est un homme qui sait vraiment donc moo moo xëcc ñu nga xamante ne vraiment donc coow parti am coow li bari na ci ay ñooñam ñu mu doon àndal et ñu bari tey euh, war ko ginnaaw donc parce que donc am na ñoo xamante ne tey dañoo ànd peut-être ci président euh, maanaam ci moom décision am na ñoo xam ne ànd ñu ci ba fee Louga donc nga xam ne vraiment donc ñoom ñoo ànd ak réew mi maanaam fële ca Louga donc ñoom déggoon nañu si seen discours nee nañ ñoo à 100 pour cent pour cent même mm-hmm. donc euh, euh, ànd nañ kii bi Idrissa Seck mm-hmm. donc de façon très ramassée donc voilà donc l'homme mm-hmm. vraiment qui va occuper aujourd'hui euh, déjà qui a occupé depuis le premier mais voilà voilà jours déjà donc mën na jàpp ne Euh, mën na ko yor d'autant plus que aussi donc conseil économique et social environnemental moom mooy troisième vraiment donc euh, pouvoir après président après assemblée nationale donc moom moo ci teg ñu xam ne aussi donc dafa nekk poste boo xamante ne aussi donc duñ ko jox ku nekk donc nag ko ko joxee aussi donc ci ay anam yi donc ñu mën a jàpp ne vraiment Idrissa Seck depuis ah, ñu sa classe. lu jaar jaar Idrissa Seck il faut souligner que c'est pas n'importe qui. am na lu bari lu def ci politique tey yàgg na ci. si on véritable politicien, un homme politique qui a fait beaucoup de choses, de parcours, il a travaillé avec Abdou Diouf, qui euh, le gouvernement union nationale, mon compte PDS, mon box, choisi pour nous rejoindre la mouvance présidentielle sous Diouf. Également, il a été le directeur de, euh, directeur de, campagne de la WAD à deux reprises, en mais également en 2000, donc euh, nekk nit ku ndaw mais également tra liggéey na ak le président de la République comme comme je l'ai dit tout à l'heure liggéey na ak Abdoulaye Wade c' était un ami de Abdoulaye Wade dañ koy dañ ko daan tuddee sax doomu Abdoulaye Wade a ba pare liggéey ak Macky Sall à à plusieurs reprises également donc euh, Idrissa quoi qu'on puisse dire politicien donc euh, lépp lu muy def il sait bien ce comme euh, Thierno l'a donc bu bu bu affaire bi bu atterrir fii tey donc ça pouvait être juste une suite mais est-ce que tey bu ñu war a installation waroon na amal la passation de service est que bu dëggal que ni guerre nekk na ci diggante ki ne moom la ñu en fait à dañuy dañuy dañuy xam passation du service bu nit ki jógee si benn benn structure ku koy remplacer euh, voilà dañuy ñëw toogal après euh, kenn ki jox ki nga xamante ne dafa war a dem jox keneen ki euh, les documents informer ko dalal ko c'est ça c'est ça loolu la ñu xam loolu nag dafa am double signification signification bu njëkk bi mooy voilà man dem naa kii man dem naa kii ñëw na donc ñu ah, dem nañ ci jàmm donc Sénégal la mais aussi benn signification que ni il faut présenté ko man li may liggéey euh, ma présenté ko en physiquement ma jox ko mu moom tamit mu mu doxal cette fois ci bu fekkente ni euh, passation de service amul. mais ñaar ñoom ñaar c'est sûr que loolu en plus que passation de service amul. passation de service amul loolu laa loolu laa bëggoon a indi si loolu laa bëggoon yow on parle on parle d'installation donc. dafay dafay dafay am lu tekki euh, bon ça ne surprend pas beaucoup parce que depuis euh, les minutes suivantes disons entre guillemets les minutes suivantes nga xamante ne Idriss ki dañoo limogé ki nga xamante ne mooy mooy mooy mooy euh, Mimi Touré automatiquement waa APS yi ak mauvaise présence mauvaise présence bi dafa commencé di ko attaquer en petit petit pour quelque quelque bu ñu bu ñëwee rek ba defuñu ce qu'on appelle par sollicité def euh, ñu daal ki nga xam mooy Idrissa Seck loolu dafay tekki ni seen diggante diggante non seulement Macky euh, Mimi Touré ak Macky Sall ça ne va plus loolu kenn naatable aussi daf euh, a un peu ki nga xam ne mooy mooy ça euh, ne va, ça ne va, ça, ça ne va pas se reproduire euh, demain, demain n'est pas la pour le moment parce que même Touré mu ngi xalaat nu mu defee benn alliance politique anti anti Macky Sall moom ak ñeneen ak kii a donc seen diggante moom on on a on en parle plus amatul amatul amatul dara donc euh, divorce bi déjà am na maintenant le pourquoi l'implication de de de c'est la bonne question. pourquoi l'implication de Idrissa Seck comme ni ñu waxee euh, am na ñi xamante ne ay ndaw ñu teewal foofu voilà effectivement donc muy à voilà donc ñoom euh, d'ici 10 heures donc yaakaar naa ne donc. dañ ko voilà donc dañ koy def en direct déjà donc fii ci Leral TV voilà lépp lu xew fii voilà voilà déjà donc ay yaatu yaatu lépp événement boo xamante ne dafa xew ak leneen ak leneen donc dinañ fa gis vraiment donc euh, comment ça se passe exactement voilà donc ñu mën a jàpp ne vraiment donc fu mu ne nii euh, Idrissa Seck xam nañ ni déjà donc moom ci euh, lutte est donc li mu mënoon est tu vois parce que déjà bu fekkee tey on se pose vraiment donc à savoir donc tey nekkoon na fii nekk na fee tey nee na du ak kii tey du ànd ak kii exactement. est-ce que c'est voilà tey bokkoon na ci ñu jàppale njiitu euh, euh, na ko parce que mm-hmm. déjà donc gis nañ ci deuxième tour bi aussi. donc mais ni gannaaw bu ñu jàppalee ba pare aussi donc ŋàññi bi mu ko doon ŋàññi ak leneen ak leneen ba ay discours am vraiment donc tey ñu gis ne aussi en tant que cela signifie que vraiment donc kenn xamul comme Abdou wax demee ne pas la veille on sait pas exactement ce qui va se passer exactement bi moom parce que la politique moom dafa xaw a complexe bu baax a baax ginnaaw loolu mën nañu wax ne vraiment donc Idrissa Seck dafa nekk koo xamante lu xam lu muy def la parce que ci ay kàddum sax bon comme ay kàddu charge lay joxe parce que déjà bu waxee rek da xam ne vraiment donc c'est pas n'importe qui qui a parlé en plus cela li muy wax lu bari daf koy maîtriser léegi nag tey mu mu mu war a installé officiellement donc ci euh, photo yam donc ñu mën ne jàpp ne vraiment donc lu gënoon a rafet mooy tey ñu def passation de service comme service yëpp ñu def vraiment donc loo xamante ne tey mën nañu may esprit de dire que voilà donc nguur du noonante nguur du leneen donc nguur continuité la tey mënoo fee nekk à à jamais donc il va falloir vraiment keneen bu ñëwee aussi donc bu jël sa place mu koo jàngatee rek tey jii fu mu ñu wanee exemple boobu ñun ñu wanee te tey waxuñu passation dañoo ne installation donc a complexe vraiment ñu mën a xam ne aussi donc même ci discours militaire bi mu def dañoo ne donc il euh, n'a pas prononcé le le le le nom du président Macky Sall n'a pas euh, prononcé aussi donc le nom de Idrissa ñu mën koo jàppale déjà donc ñoom seen diggante ratax na wala wala lii la beneen bi mooy Idrissa Seck donc mu ngi doog a ñëw fu mu ne nii donc ci gouvernement ci ci ci nguuru Macky Sall bi il a été nommé donc il doit prendre vraiment donc la place de de de vraiment donc di ko xeexal donc ci diggante ak Mimi Touré wala exactement est-ce que dafa waroon la taxal diggante parce que passation de service day am en plus cela bu fekkee indi na benn vraiment donc jëmale ko je pense que c'est trop complexe et il faut revoir la chose. mais Abdou est-ce mu nekk ci boobu yi nga xam ne doon na tuddee ko ak ñoom donc est-ce que du moom moo am lu ni mel. waaw euh, Idriss Seck euh, mu nekk ki nga xamante ni euh, depuis bi mu wu dafa commencé automatiquement di di di attaqué ki nga xamante ni mooy Mimi Touré mm-hmm. naan day def day day xoolaat liggéey yi nga xamante ni Mimi Touré liggéeyoon na ko mm-hmm. loolu ci dafa mën a dafa dafa mën a am lu muy tekki ci wàllum euh, ci wàllum ab politique parce que quand il a été fraîchement installé gis nañ critiques yi euh, ça déferle de partout ñëpp di ko critiquer ñëpp di ko bàyyi ñëpp di ko xas à la limite di koy injurier donc loolu euh, mën na il peut utiliser changer un peu le débat utiliser jéem a attaquer Mimi Touré ñu débat bi nekkaat Sénégalais ak opinion publique ak nous la presse ñu nekkaat ci le pourquoi ñuy xeex le pourquoi ñuy attaquanté ñu bàyyi ñu bàyyi li critique bi ñu daan di critiquer Idriss Seck le décrédibilité xam nga ñoo ngi daan décrédibilité loolu ci wàllu politique mun na tekki loolu mais également euh, ci wàllu ci wa ci beneen wàll mun na tekki leneen parce que euh, quoi qu'on puisse dire euh, le président de la République quoi dafa bëgg en loolu comment dirais-je defar le champ politique pour affaire bi gën a tax pour mu daal di daal mu daal di dox ku mel ni bi mu tur dafay sonal bu fekkee tey di jëlee rek ko fii ak yeneen ak ñeneen opposition bi donc il va falloir tout chercher tout faire pour euh, rendre faible ces personnes comme ni ñu turee comme euh, Moustapha Diakhaté euh, comme Moussa Diop moom tamit bu def sortie am di attaquer le président de la République donc moom il cherche ces ces personnes te boo amee ku mel ni Idrissa Seck mu arme bu rëy la donc ci ku mu ku mu attaqué euh, euh, comment dire combat bi dina dina métti donc mën nañu jàpp liggéey dafay xeex ak Macky. comme comme comme je l'ai dit mun na mun na pour se sauver parce que pour changer le débat mais également il peut euh, attaquer Mimi Touré pour Macky Sall ko utiliser comment dirais-je a un peu salfaañe. li nga nekk di guerre ci gannaaw. forcément non forcément moom moom jiitu jiitu wu ko sax moom c'est pas il n'est pas le premier à attaquer même Touré il a été il a été débauché yeneen membre ak ah, euh, mouvement ñu nekk mouvement présidentiel moo mu ñëw njëkk a euh, euh, attaqué ki nga xamante ne mooy Mimi Touré moom dafa topp su dafa topp logique bi rek l'implication moom dafay dafay dafay flou dafay dafay xaw compliqué nga wax exactement li li li li moo ko waral quoi qu'on puisse dire c'est pas ce qu'on attend exactement de Mimi Touré de de de de Idrissa Seck les en tout cas ngi xaar euh, Idrissa Seck yi nga ko installé mu teg les jalons mu nar a yore li nga xamante ne mooy conseil économique social et environnemental ak fu la nar a def quelque chose comme ça mais bu commencé naan day balaa euh, ak Idrissa day tax sénégalais yi naan voilà ba tey nañu topp seen seen xeex bu ñu ñëw pour xeex ñu euh, tuure moom euh, en tout cas ce que ce que si lu mu si lu mu moom voilà euh, addina bi dafa la voilà la sous-région la sous-région dafa nekk si ay tolof tolof tolof tolof tolof covid 19 in comment dirais instable comment dirais wala bokk ma ne menace tout depuis comment dirais noonu laa koy waxee sax terrorisme loolu yëpp daf fi am donc moom leen dafa ñu si contexte boobu pour épauler ki nga xamante ne mooy le président de la république donte am nañu accepté wul argument boobu parce que am nañu wax ne il pouvait travailler pour le Sénégal étant opposant est quelque chose qui est vrai, mais aussi on, on accepte son, son, son, son, choix. Donc, je pense qu'il est venu pour travailler. Amadou Seigneurina, c'est une question financière, il est Amadou Ben Fortune Bi. C'est vrai que nous sommes pas du monde du gouvernement. Voilà, Amadou Fortune Bi, il fallait forcément chercher les profal xaalis ñëpp xam nañ ni la vie d'un politicien surtout nga nekkoon premier ministre nga nekk nga occupé poste yu bëri boo nekkee si opposition pendant ans kenn gisatu la forcément mm. bu ñu euh, euh, bu ñu avancé argument boobu ko il a des problèmes de d' argent. c' est sa ça ça faut se comprendre. li ñu wax aussi Cheikh ni moom i dafa dem ànd ak Macky ngir Macky wàccee moom wuti ko loo xam ne aussi mën nañu ko jàpp. bon déjà moom euh, dégg nañ ni déjà donc ci ay waxtaan yu bari déjà euh, nee na moom ak Macky Sall donc il font quatre-vingt-quinze pour cent de la déjà bu fekk comment dire ci ci ci ci ci ci ci ci ñu génn donc tey ñu mën a fekkee tey vraiment donc nekk nañ ci dynamique boobu mën nañ yaakaar ne fu ne nii am nañ Sénégalais yëpp donc un peu ça beneen bi mooy est-ce que Macky peut-être euh, euh, dina maanaam déposer troisième mandat wala est-ce que dafay teg euh, comment dire kii di bopp réew mi wala et cetera on sait jamais en tout cas vraiment donc ñu ngi xool en tout cas cadence bi ñu gisatuñu vraiment benn yoon ci euh, est-ce que Macky dafa maanaam ci yoon boobu la jël Macky en lu ñu yoon mooy bu mooy dafay écarter ay noonam ay danger la que déjà euh, ku toppoon ci ginnaaw ci élection yi moom mooy mais avec 35 pour cent donc Macky am 50 donc 35 50 donc ça fait euh, jàngatee ne bu fekkee tey nekk na ci benn anam wala ci benn maanaam ci benn lancé mën na jàpp ne Macky dafa nekk di effacé ci lépp loo xamante ne vraiment donc mooy danger mais par contre vraiment donc d'aller jusqu'à dire que peut-être Macky Sall dafay xàllil yoon euh, kii di Idriss Seck ak Idriss Seck déjà sénégalais yu bari dañ ko commencé maanaam wan ginnaaw moom ay ñoñam ci boppam dañ ko commencé wan ginnaaw donc tey jii Macky ne mise pas mais Macky a écrasé politiquement kii di Idriss Seck parce que déjà moom dafa def wax waxee à la base ne woon na kenn ko nominé newoon na aussi du ànd ak kii di awema Macky Sall dañ ko embauché dafa ànd ak Macky Sall donc ay wax yu bari yi nga xamante ne dèjà fu mu ne nii Macky xam na bu baax li muy def donc fu mu ne nii euh, ni est-ce que dèjà donc ci lancé boobu la jëm mm-hmm. lu jëmee vraiment donc ci li nga xamante ne tey moom mooy euh, Macky Sall mu teg vraiment donc si si saytu ci kanam euh, mais tey jii est-ce que mënuñu xaarandi ak ki nga xam ne mooy avec son première opposition. Absolument. C'est une possibilité. mën na dem voilà mën na war a mën a nekkal sax mën na dem fekk ci ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko daal di formé loolu sax loolu ça ça se dessine. parce que xam nga tey jii dama ko Idrissa Seck ci nguuru oh, eh, eh, Macky Sall je pense que ñu bari la benn jiwu tey mën nañu xaar ki nga xam ne moom mu dem ànd ji ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. en fait depuis toutes les parties de la recomposition du gouvernement de Macky Sall ça aussi changer la configuration euh, euh, de l'opposition donc ñoo ngi xaar ñu ngi wax naan Ousmane Sonko déjà Khalifa Sall loolu déjà c'est c'est c'est dessiné ñoo ngi pourquoi pas ñu collaborer ci ci élection euh, locale yi loolu am na ba pare donc boobu en en temps donné ki nga xamante ne mooy Mimi Touré mën na dem fekk si mouvement boobu te Mimi Touré plus Ousmane Sonko plus Khalifa Sall ça va faire béton lay nekk ah, donc loolu loolu mooy opposition mooy gën a dëgër que que que opposition bi nga ne ku mel ni parce que ku mel ni je ne dirais pas que le Sénégalais vomir nañ ko euh, ba nañ ko mais on Ousmane Sonko on Mimi Touré qui a qui a fait toutes ses preuves nga xam te ne amatul muy wane sax la mu profil liggéey na fii depuis bi mu nekkee